mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu monsieur maire Mouhamadou Diagne Mbengue mu ngi noonu di jox population Tivaouane li nga xamante ni mooy ndimbal jim leen di jox ci Covid 19 bi def ko nag avec simplicité wax dëgg yàlla jënd na ceeb jënd na suukar jënd na dawlin gis ngeen ko mu ngi noonu di ko joxe ah, looy wax wax di wax di xam ne nag wax dëgg yàlla monsieur le maire jàmbaar nga nag nga nag. Euh, jërëjëf donc euh, ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen euh, teewaay ni ngeen ko waxee tey jii suñu ñëwaat tey fii ci mairie bi lancé démarrage joxe ndimbal bi nga xamante ni dañ ko jëmee ci askan bi dafa am benn communication buñ ci jotoon a def ndax gannaaw bi ñu rafetloo le président de la république Macky Sall li mu tànn lu toll ci quatre mille cent quatorze ménages fii ci biir Tivaouane jox leen ndimbal ci wàllu force Covid 19 ñun dañu waxoon nii am na loo xam ni dañ ko daan def at mu jot mooy bu koor gi jotee ñu dimbali askan bi ren nag ñu ni loolu dañ koy toftale ak li président def ñu xool ñi nga xamante ni nii bokkuñu ci 4114 ménages yooyu ñu jox leen. ñu ni woon loolu aussi dañ ko bëgg a def façon boo xamante ni waa Tivaouane yëpp dinañ xam ni dinañ ko def non seulement de manière transparente mais façon bu mu gën a yaatoo ñu ni woon nag yéene woon ni dañuy xaar ba ndimbal li nga xamante ni président de la république mi ngi koy joxe pare su paree ñu mën xool ñi nga xamante ni amuñu ñu jox leen wante comme président dafa bi. Euh, administration wax leen ni dafa bëgg lépp jaar yoon mu am transparence ba benn euh, euh, xëccoo du ci am du am benn par parparloo liggéey boobu nag gaawul comme gaawul te actuellement mënaguñu commencé joxe te koor gi mi ngi dem ndax tey mooy fukkeeli fan ci koor gi ci biir Sénégal te nit ñi vraiment wax dëgg yàlla soxla nañu ko te li ëppoon solo ci loolu mooy liggéey bi dénk nañ ko ay comité au niveau des des quartiers ak ay sous comité xam nañu ñan ñooy ñi nga xamante nii tànn nañ leen kon tey jii même bu fekkee ne président joxeegul ñii am foofu xam nañu ñan la kon nag ñun yomb na ci ñun ñu tànn ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu ci liste yooyu ñu jox leen. ñan ak ñan lay doon. Euh, Tivaouane la maanaam dans chaque quartier sous comité ba tànn na ñi nga xam ne dañoo bokkoon bokkuñu woon ci registre national unique bi mais mbas mi. daf leen a laal ba ñu nekk ci nekk ay nit yu soxla ñooñu tànn nañ leen ba pare suñ ko boolee ngi nekk ci RNU bi des na ba tey ay ménage yoo xamante ne nii amaguñu ñooñu nag la ñu waxoon dañuy xaar ba président pare parce que bëgguñu dara loo xamante ne nii si liggéeyu président mu mel ni benn li ñuy def daf koy concurrence mais dafa war a ñëw pour compléter ko mais comme ni ma la ko waxee comme loolu mënagul nekk ndax liggéey bi fi mu war a jaar dafa dafa yaatu dañoo bëgg bus bu paree mu nekk liggéey bu mucc ayib te nit ñi soxla nañ ko ñi ngi ñëw ci mairie bi di laaj kañ lañ leen di jox ñu ne li amoon solo rek mooy bu ñu jox nit ñaari yoon donc liste yi nga xam ne ñoo war a am ci loolu xam nañ leen tey jii am na quartier yoo xamante nii ci Tivaouane daanaka ñëpp am nañ benn wala ñaari menage ñoo fa amul wala am na yoo xam ne effectivement ña fa nekk ñëpp am nañ ñooñu du jaraat xëy na ñun ñu fay dolli leneen mais quartier yi nga xamante ni nii am na ñu fa manqué comité ba doon liggéey am na ñu jotoon a bind wax ni ñiikat mooy ñi nga xamante ne nii suñ mbir mi matoon dinañ leen ci boole quota bañ leen jagleel ñoom ñu ñu tànn ko. mais am na leneen lu ci am mooy am na ay quartiers parce que Tivaouane officiellement dafa war a am vingt cinq quartiers mais tey jii dem nañ ba toll ci plus de soixante quinze quartiers ndax ay nit bu ñu dajaloowee nekk ay sancaan tuuti rek ut ku leen jiite jàpp ni am nañu am nañu quartier du ñu jokkoo ak quartier bañ fa fekk. loolu jafe-jafe bi mu indi ci lii. mooy gis nañu ay quartier yoo xamante nii yu mag la man damay jël exemple par exemple ci PAM nga ma dëkk li ñuy wax PAM extension quartier la bu am plus de cent maisons mais tey jii la ñu jox quota ba ñu jox PAM ñoom jotuñu leen si jox loolu nag ñun comme mairie identifié nañu leen ñooñu dinañ leen ciblé jox leen ñoom tamit ci ndimbal bi yeneen quartier yi fu mel ni quartier Dabaax si la bokk fu mel ni fi ñuy wax màngoo Mangoga si la bokk am na yeneen quartier yoo xam ne yu mel noonu yoo xamante nii quartier bu ñu dem dañ leen wax ni bokk leen fi parce que effectivement quartier conseil municipal moo koy autorisé ñooñu dinañ leen jox loo xamante ni dañ koy jël ñun jox leen ko directement li ci des nag quartier yi nga xamante ni mat nañu du jar ñu fay demaat mais ñi nga xamante ni ay quartier la yoo xam ne am ñu foo xam ni amuñu ñu jël quota jox leen ñoom ñu tànnaat nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy def kon ñun lii day nekk continuité ci liggéey bi nga xamante ni euh, tàmbali woon nañ ko li ci changé rek mooy que ni dootuñu xaar. ba ndimbalu état bi dem mais dañ koy tàmbali léegi ndax koor gaa ngi dem te nit ñi wax dëgg yàlla soxla soxla nañu ko loolu rek mooy li ñu fi dajale woon léegi joxin bi nan lay euh, demee joxin bi gis ngeen fii am na benn parce que bu leen fàtte ni loolu si maire bi dafa am lu ñuy woowee la commission sociale ñoom ñoo koy def gàmmu ñoo koy def kori koor ñoo koy def korité ñoo koy def tabaski donc ñoom ñooy toog fii di joxe li ciy changé rek mooy commission boobu mu daan ciblé directement mais bi yoon du commission boobu moom mooy ciblé mais comité de quartier nga xam ne ñun ñoo ko mettre en place si ndigalu préfet ñoom ñoo ñuy jàppale ci ciblage bi ñoom nag ñoom ñooy toog fii mais nag mbas mi tax na ñu woo commission bi yëpp donc présidente bi mooy Adama Diagne si biir liggéey bi li ma ko partagé madame le maire euh, madame Sidi Lo moom mooy superviser lépp luy social ak santé moom moo leen di superviser ñoom ñu toog fii ñi nga xamante ni ciblé nañ leen bu ñu ñëwee jël seen tur jël seen numéro téléphone jël seen numéro carte d'identité ak carte ba ñu jëm am na même benn ticket boo xam ni nii li muy bari bari yëpp man maa ko signé. Mm. ñu jox leen ko parce que dañuy bañ benn fraude am ci. Mm. mais amul kenn koo xam ni dinañ ko jël fii tey yóbbul la ko sa kër. dañu bëgg daal mille saak yi ni mu nekkee ci salle bi. ñu koy jël benn par benn benn nit di ko jël ba keroog muy jeex donc lépp fii lañ koy jëlee si biir mairie bi. composition doo bi am na ñoo xamante ni dinañ am xam comme pour mu gën a yaatu ñii dinañ am ceeb. ak suukar ñii danañ am ceeb ak ak diwlin. ndax am na ñoo xamante ni dañ koy dégg rek te sedduwuñ ci seeni koñ bu ñu ñëwee fii bind ndax dinañ leen jox. waa xam nga loolu bu ñu ko naree def day indi jaxasoo. Hmm. comme am na ay comi suu comité yu ñu teg chaque quartier. Hmm. koo xam ne sa koñ da jàpp ni waroon nga am amuloo da dem ci foofu si sous commission boobu nga signalé wu. Hmm. terewul nag bu fekkoon nit ñëw na tey jii dugg ci maire bi ni ñu mën kat quartier sàngam laa dëkk. dama waroon am amuma ñun dinañu jël la peine woo commission ba ni leen kii recevoir la leen ñu ko dafa wax ni fa la dëkk mais jotu leen ko bind ñu seet ko suñ sañoon daal tey jii nii ñu ko doxale ndaxte tey jii yomboon na ma tey fii ma toog ma tànn fii ma toog di xalaat di bind mille personnes te ñëpp dañ ko yeyoo mais comme nag yëfi ñëpp la moo tax ñu jël ko cette fois-ci même innovation bi fi am waa commission sociale bi nga xam ne ñoo daan tànn ñoom nangu nañu ñu jël mbir mi delloowaat ko comité yi nga xam ne mettre nañ ko en place xam ni ay services techniques de l'État ñu ngi ci biir ay euh, bàjjan gox yi ñi ngi ci biir relais yi ñi ngi ci biir mais dans chaque quartier aussi une personne ressource xamuñu ndax day politique politiquewul ñun la àndal àndal ak ñun mi ngi ci biir donc tànnin bi moom kenn mënul jiixi jaaxa ndax jaar na yoon wala jaarul yoon li ñuy ñaan kay mooy lii ñu jot a def muy mille familles yooyu ñu jox leen yàlla may ñu bala ñuy pare ñu amaat leneen loo xamante ne nii dinañ ko ci dolli ba mu gën a yaatu loolu sax mën na mën na ko mën na ko que comme ni ma la ko waxee logique boobu si lañ demee woon au début parce que boobu lañu bëggoon def rek un partage équitable mais bi ñu saytoo liggéey ba ci biir gis nañ ni am na quartier yoo xamante nii tey bu ñu fa dugalaatee rek dinañ jox benn nit boo xam ne amoon na mu amaat loolu yëpp nag ñoom dinañ ko saytu xool ko fu dubloo nar am ñu wàññi ko quota yi ñu defoon sax dinañ ko changé waat parce que nekkatul partage équitable dañuy xool ñi nga xamante ni dëgg-dëgg amuñu ñu ñu ñu jox leen parce que bu ñu nee approche li ñuy joxe quartier bu ne il faut mu dugg fa fekk quartier boobu am nañu ba matal sëkk te kit yi état di joxe nag moo gën a rëy kit yi nga xamante ne ñun ñooy joxe day nekk day nekk jafe-jafe donc léegi fixé tuñu si ay nombre loo gisoon ñu wax 600 400 moo doon dañ doon xalaat ni quartier yooyu nga xam ne ni bàyyi nañ leen bu ñu leen eh, identifié mat nañ 5 à 6 quartiers ak ñi nga xamante nii même ci daara yi am na ay benn benn yoo xamante nii dañ leen a fàtte woon bind nañ ñu demandé ñu ñooñu ñëpp aussi dañ leen mën a gérer ci quota bi mais li am solo comme ni ma ko waxee amul dara loo xamante dañ koy jël yóbbu ko nit ñi dinañ ñëw benn benn di ko jël fii ciblage bi effectivement ni ma leen ko waxee. noonu lay demee kon pare ngeen euh, pour séddale ko nii nit ñi di ñëw di ko jël si. Mm-hmm. incha allah léegi nag pour ba jaxasoo ak euh, ak pandémie bi ku si ne dañuy jël sa téléphone woola wax la ban bës ak ban heure nga war a ñëw parce que suñu nee nit ñi ñëw leen rek ñëpp dañ fi daal di daje. ñoom ñi fi nekk muy la commission sociale dinañ organiser wu à jour d'aujourd'hui xool de manière euh, organisée bés ak heure bu ne ñan lañ ciy woo ñu ñëw jël fii du am dajaloo parce que jamono ji laaju ko.